salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu euh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi xam ngeen ni ñu ngi fii ci Tiwaawoon euh, dëkku maam Cheikh Sidi Hadji Malick waaye fii ci kër Abdoulaye Ndiaye Ngalgu euh, mi nga xam ni yaakaar naa ni Tiwaawoon kenn du présenté kan mooy Abdoulaye ngal gu taxawaay bi nga xam ni am na ko ci xadara Malick waaye wëllëreem xaritam Euh, soppeem kenn ci moom koo xam ni euh, yaakaar naa ni euh, wax na ko ci biir mhm. muy Cheikh Alassane Sène soppe yonent bi alayhi salaatu wasalaam ah ni daal day yable ci doomu ndeyam ci rakkam ci wëllëreem teraanga yoo xam ni jàppale ko ko ci guddi gi nga xam ni mooy guddi yonent bi alayhi salaatu wasalaam mhm. ndax Abdoulaye ak Cheikh Alassane ñu am lu nu nuroo mooy seen njaboot ñu fob leen tuddee leen yenen yonent bi alayhi salaatu wasalaam bay Modou yow mi nga xam ni itam Eh, tabaarakallahu yor kaddu ko eh, eh, Abdoulaye Ndiaye Ngalgu gis nga oto bii ay fir la def ak ndox ak teraanga yoo xam ni ah, waaye boole ci nag ñetti nag ak gileem ngir lan wàcceel ko mbokkam mi nga xam ne nag yaakaar naa ne ñoom ñaar du ñaar kenn la noonu moo waral tabaarakallahu ngeen gis xéewal yi gis teraanga ji nga xam ni Cheikh Alassane seen soppe yonent bi indil na ko Cheikh Abdoulaye mii nga xam ni yemul ci indi gi waaye dina ñëw ànd ak moom gàmmu gi gunge ko ci gàmm gi wétlu ko ci gàmm gi ba mu xam ni daal euh, bis bii bisu yonent bi la bisu jullit yi la waaye bisu Cheikh Sidi Hadji Malick la bay Baye du yow euh, noo déggee ak noo gisee teranga ju réy ji nga xam ni Cheikh Alassane Sène def na waaw Mouhamadou euh, ni ma gisee teranga ji wat ci watit rek laa gis ndax ki ko defal ak kin ko defal ana ñooy ñan mhm. kii di Cheikh Alassane Sène kii di Abdoulaye Ndiaye Ngalgou yàlla boole leen mhm. ñuy ay jullit yàlla boole leen ñu bëggante yàlla boole leen ci kóllëre yi wayjur ñu ànd bokk benn jikko mooy bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaayante ki seen njaboot jëme ko ci Seydina Muhammad muy kóllëre gu wér waaye nag jaaxle wu de ndax kii di Seex hmm. am naa lu tuuti lu ma xam ci moom ci bëgg Seydina Muhammad Mamadou wax naa sànq ci biir ni la Cheikh Alassane dañ koy ñaanal yàlla wér dañ koy ñaanal yàlla gudd fan ak wërsëgu yaa mm-hmm. xol bi toll na ni mm-hmm. na ñëpp banque seen i loxo ma teral Seydina Mouhamed ci bis bi kër gu ne mu wàcce fa lu mu fa war a wàccee jëmm ju ne mu jëfal la lu mu la war a jëfal kii mooy Cheikh Alassane mm. te lu mu joxe lu nekk romb na ko fàtte na ko gëm nag jëwriñam Seydina Mouhamed kon Cheikh Alassane daal ñu ngi koy ñaanal yàlla jëf ji yal na ci yàlla sukkandiku ci ci barkeb Seydina Mouhamed yéege ko fi maqaamam mu kawe dolli wërsëgam akuk wéram ba li mu yéene ci Seydina Muhammad suñu borom defal ko mu ànd koog mbokkam mais xaritam beeg doomi ndeyam bi Abdoulaye Ndiaye. waaye nag itam ku wax gàmmu guddi yenent bi ni bernde waaye wax itam lu saf suukar waaw aw aw aw laxamin la nu wax waaw moy mooy mooy waaw bi waaw mooy mooy yàpp ak lu saf suukar moo tax ku ko ci def yonent bi nee na donte benn dërëm la nee na danoon la ko fay kon nag mu jël tol toll ñi jëfal ko xaritam mm-hmm. soppeem bi wëlëreem bi nga xam ni mooy Cheikh Abdoulaye mm-hmm. nga xam ni wax nga ko ni mm-hmm. Tiwaawan li muy rëy rëy Abdoulaye bu doon euh, pas-pasam yéeneem kenn ku ci ne moo lay jox looy gàmmoo bëri na ñoo xam ne ñu ngi ñëw fii di wut si ndimbal di ko tàllal loxo muy jëlaat ci alalam di leen ko jox ngir yonent bi waaye ngir Cheikh Sidi Hadji Malick Cheikh Alassane daal sa xarit sa soppe sa wólle soppe yonent bi moo ne daal nanu la ko indil ah, nga def ko ci gàmm gi teeroo ko say gan waaye Abdoulaye daal li mu njëkk wax bi mu gisee teraanga yi wàcc def ni Cheikh Alassane daal defar na gàmm gi gàmm gi daal Cheikh Alassane daal defar na ko mm-hmm. moom daal incha allahu fii ak ñaari fan da nga gis sa xarit sa soppe mu ñëw ànd gi daal ñu ngi la ci souhaité di la ci ñaanal jàmm di la ci ñaanal wér nga gàmm ko ci jàmm ñi la fi fekk fekk la fi ci jàmm te nu delluwaat ci jàmm lii rek mooy kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu Cheikh Malick waaw jërëjëf waaw kon ñu déglu tuuti Sëñ Ablaye mu sànni ci ay kàddu jërëjëf Modou ablaay Ablaye nee na jërë ngeen jëf maa ngi leen di delluwaat nee na mi ngi delluwaat di leen santaat ñoom ñi nga xam ne. nee na yéen ñii nga xamante ni. yéen ñi Cheikh Alassane yónni. ñu na tey nag mu yëg ni da cee sawar lool. ñu ko. tey it nag ngeen rafetal ko lool. kii. nee na kii. di Malick Sène. di Malick di magu seex al Sène. moo jiite na moo jiite délégation bi. nee wane na Malick mu jëm nee na Malick mii ci Abdoulahi mii mu jëm si. cheikh bi day wane bi da ciy wane ni. ku la. ku ku ma téye la. nee seedeel nit ñi day seedeel nit ñi dégg. teraanga na teraanga yii nga xamante ni Cheikh Alassane def na ko tey. yónnee fii ñetti nee na yónnee fii ñetti nag. ak gileem. nee na ak gileem. tool lu su ndox. nee na lim fi yónnee ci ndox lim bi kenn mënu koo tudd. booleek lim fi yónnee ci boison it kenn mënu koo tudd ci lim. si fruit. nee na te bi it kenn mënu koo tudd. dolli si. nee na toll ci nag. dolli si dolli ci nag. ñaw yére. nee na ñaw yére. ni ko nag Abdoulahi mbubb mii moom ngay gàmmoo. nee na loolu daal teraanga. nee na loolu teraanga gënu ko bi mu génnee léegi. nee na bi mu génnee léegi. bi mu gis gisee teraanga yi. nee na man Abdoulaye Ndiaye Ngalgou dama ni Cheikh Alassane Sène moom defar na gàmmu gi. ndax lii. ku sa xol rëyul. ku sa xol rëyul. ku yéwenul. ku mënoo jëf jëf mënoo toll nii. te chaque jour. te it nag chaque jour. su ma nee na su ma wooyee. nee na moom Abdoulaye Ndiaye mi ngi yëg ci Cheikh Alassane. yéeneem ëppoon na lii yéeneem gën na kawe lii mais na Malick nee na mi ngi lay séeréel cant gu muy sant Cheikh Alassane Sène bu baax nee na mi ngi koy ñaanal nee na yàlla na ko yàlla taxawu ci biir yàlla aar ko ci biir sàmm ko nitu teraanga nit ku noble la nit ku généreux teraanga yii def nee na teraanga yii mu def. yàgg na ko def yàgg na koo def. lu jiitu lii. teraanga bu nekk. nee na teraanga bu ne. ak nee na sànq. nee na mën a toll. ak circonstance bu mu mën a toll. saa yu ma gëstoo. saa gis naa Cheikh saan nee na kon mi ngi koy sant bu baax. lii def nag. nee na lii mu def nag moom Cheikh Alassane. defal ma ko. nee na te defal ko ko. nee na moom seexal Alassane na jàpp ni. defal na na xam ni Tiwaawan gépp la ko defal. defal ko xalif na defal na ko xalif général de Tidiane. ndax lii lépp. ci doomu aadama yi rek lay demaat. kon daal loolu. yiw wi ci ne. ak barke bi ci nekk yëpp. yàlla na ko yàlla fulal. lii bu déwénee. doona asakay yéeneem ci li mu jëf amin nee na bég nañ ci lool lool yal na yàlla fay ko Muhammad alayhi salaatu wasalaam daal di jël ñaar téeméeri pagu ndox ni tegal leen ma ko ci jox joxal ma ko soxna kala mi nga xam ne mooy yaayu dara ngir lan sa taxawaay ci kër gi ngir sa taxawaay ci xadara bi waaye ngir sa taxawaay nag ci waañ wi kon soxna si nag waa lii mooy teraanga ji nga xam ni Cheikh Alassane newoon na nan la ko indil ñu ngi lay ñaanal sunu borom dëgëral la te yàggal la jërëjëf kontaan na kontaan na bu baax. ndax lii yëg la. nee na lii yëg la. bu indi woon benn ndox rek. moo ko ëppal lii. taddu tey nag. taddu tey nag. démb la ko bay xel nag mu bàyyi la xel la xel. sëñ Abdoul Aziz Sy Al Amine daf ni woon loo bokk bokk nit. loo bokk bokk ak nit. te bëgg la bokk ak la bokk ak yow. nee ko bu ëllëgee bu ñu ko bu bu ñu ànd. loo ñàkk ñàkk bokk nit. mun la kaay ñu ànd. mun ànd. ànd leen baal jana. ànd leen baal koy sant. mu ngi koy sant. di ko gërëm mu yabal ñii mu yabal. nee na sunu yabaloon rek mu doy. waaye lii mu def. waaye lii mu def. yabal nu. fa tabaarakallahu. boole ci Cheikh Malick mii mu bokkal ndey baay. nee na soxna Aminta njaay mu baax mii. nee na mu boole ko ci. yàlla na gudd fan. nee na su amee yàlla na wér. ànd ak sutura. ànd ak teraanga. ànd ak muccule. li mu bëgg ci réew mi. yàlla am na ko de yàlla na ko yàlla defal ndax nee nañu ndax nee nañu ku yor sareet ku yor sareet di la yóbbu di la yóbbu waaye boo amee oto waaye boo amee oto ne du ma ta wax kii bu yéegee waay waay kii bu yéegee ne sunu xel dal yàlla na yàlla dalal xelam kontaan nañu jërë ngeen jëf